noo ngi sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dool ko xewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddina tukki bokk yi fii ak ay bis rek màggal gi agsi te bu agsee ay junni junni nit dañuy dañuy daje fii fi Touba waa Touba it ñu ngi tàmbulee eh, waajal nu ñuy teeroo gan ñooñu dafa am nag wàll wàll gu am solo ci waajal googu boog dana am ñu koy sàggane bañ ko bàyyi xel nu bëgg a bàyyiloo xel wàll googu am na wàll guy feeñ ci waajal màggal bi waajal teeru gan ñi wàll giy feeñ mooy defaraat yi ñuy defaraat dëkkuwaay yi ak jumtukaay ak it yembal gu ñu jéem a yembal lépp loo xam ne des na ko soxlawoo bu jamono jooja ci lu jëm ci lu ñuy jëfandikoo ci aw ñam wala ak naan wàllu googu moom ñépp koy jox yitte daanaka sax danañu àgg ci mel nañu ci rawante te it wàllu gu jar a jox la bokk na ci li ñuy tuddee teral gan te teral gan àq la juñ ameel gan gan dafa am àq ñu teral ko te loolu ci teral ko lay dugg kon bu jaadu la waaye nag dafa am beneen wàll it goo xam ne gënta néew solo wàll gii te wàll googa moo aju ci jikko jikko ji nit ki war a jëflanteel ak ganam ak sax jikkoom rek ci wàll yépp lu aju sax ci digganteem ak ganam ndax sëñ bu mag bi bi muy wane ak ci gan ci nax ju xadaayul xaaj dafa wax ne gan nang ko teral ni nga koy terale nag mooy yaatal ko berndeel ko won ko mbégte jegeel ko sa bopp itam mu ne sa gan bu ab xolam xat mukk ci yow wala yow bu sa xol bu sa xol xat ci sa gan mooy kon loo koy defal rek na ko def ci xol bu tàlle ndax du ya, du fi yàgg gan moom du fi yàgg du fi dëkk du fi dëkk ay fan la fi am wala ab diir rek dem te mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku gëm yàlla gëm bis penc nay teral ganam sëñ bi kon loolu la tudd ci nu ñuy terale gan kon yëmul rek ci wàll gi feeñ lu jëm ci aw ñam wala fa muy dal wala mel noonu rek waaye li nga koy won li nga jëflante ak moom ubbiku gi ak yaatu gi ak mbégte mi ca la bokk kon wàll gi feeñ muy li jëm ci bernde yi jëm ci ñam ak dëkkuwaay ak ak naan amna solo jikko ji ngay ak sa gañ tam amna solo waye nak sa jikko ci bopam rek mo xam ci jëflante ak mom wala ak ñeneen ñi ci dess lepp itam amna solo rawati rawatina ci fani magal kon magal mom ni ñi berne la gañ ñi loolu itam dañ ko ci wara bay wala xel li tax mooy ñi dekké Tuubaa dañuy melne ak ab lañ ab buy wone dekk bi tey ñu bari ci waa réew mi ak nekk feneen sax ñu ci bari dañuy former waa Touba ñoom ci li sëñ bi bëgg la ñuy nekk loolu la ñuy àndaale loolu la ñuy jort te jort ne waa Touba ñoom ci njàngaleem sëñ bi la ñuy tënku kon dañ leen di jàppe ay royukaay dañuy jàpp ne ñoo war a doon royukaayu murit yi ci des ginnaaw noonu la demee nag. kon nun waa Touba amunu sañ-sañu di tas yaakaari nit ñooñu jot loolu nu am ñu am ci nun amunu sañ-sañu di ko di ko tas amunu sañ-sañu itam di waral lu yàq derub dëkk bi ndax seetu lam wone rek lañuy ñuy la muy wane noonu la mel bu seetu bi sikkee nag ba wone lu bokkut ak la am dëgg-dëgg kon dana tax ñu sikkal la am dëgg-dëgg te fekk ci seetu bi la dëkk bi nga xam ne sëñ bi ko sos sëriñ bu mag bi da ko sosoon ngir dundal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek loolu rek a tax mu sos ko loolu la wax kon war na góorgóorlu ba mu doon seetu buy waneel dëgg dëgg dëkk bi te dëgg dëgg dëkk bi moo war a doon kon lu dëppoo ak njàngaleem sëñ bi rek noonu ñaan yàlla kon mu dimbale nu ba nu mën a ba nu mën a teral gan ñi terale leen ci liy feeñ ak li feeñut muy wàllu jikko ñu ngi koy ñaanit mu def nu nu yeyoo dëkk Touba ndax Touba dañuy yeyoo fi yeyoo mel ni nga xam ne boroom noonu la woon ko fi dëkk dëkki ko fi kon noo ñaan yàlla mu def nu nu yeyoo dëkk Touba di ko ñaan tam mu def nu ñu borom dëkk bi di sago ndax bu ni tam ginnaaw sanc na dëkkam te li ko taxoon mu sanc ko mooy rek dundas dundal sunna seen nabi salaam bu sañoon bu ëllëgee mu mën a sagoo ñu fi dëkk yàlla na yàlla boole ci ñu muy sagoo ñoom ñaan yàlla mu defal ñu waat nag waa laaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm bil na bunt yu yëpp soob nu ci ak njub mottali sunu yéene yëpp may nu fan mu gudd ak wér may nu mujj bu rafet